alamin bara fm àdduna ngi nii demal maa ngi ñëw la ku faatu ñàkk nga say médaille àdduna ngi ni demal maa ngi ñëw la ku faatu ñàkk nga say médaille àdduna ngi ni lu fi di ñot dina doon lu baax lu ñu sopp waay àdduna ngi nii nañu wor ko ndax lu ko moy mu wor ñu du tus bilaay ana say xarit yi nga daan fowal guddi ak bëccëg ana say nijaay du sa yaay ja dem na sa baay ba dem ana ñoom sukkay wala moo du njaay ana say moroom ana nit ñu baax ñi la daan xelal ana bàcc njaay ana suñ yónneen ba ñu yónni ci mbindeef yi tey fu mu nekke waay ana Baabakar ana ñoom Omar ana Aliyu Usmaanu waay ana Baabakar ana ñoom Omar ana Aliyu Usmaan waay ana Xaalid ak ñamu daan xareel sama soppe Xamsatu dem na waay ana suñ sëriñ Seexi Bamba ak ñamu meññi ñépp ñu dëdd waay ana Baay Asan ana yaa mbayang ana Abdullah Sall dem na waay ana Baay Asan ana yaa mbayang ana Abdullah ana Faani ana yaa kumbaak soxna mbenn gëyëg sama maam jo seex bala dem na waay àddunaa ngi nii lu fi meññ tey dina wow ëllëg na nga xam ko waay àddunaak meloom bu ma koy xalaat dama naan du tus du xarit du waay ne ku bég fi tey dinga mer ëllëg te ku ree fiit dinga jooy bilaay lu fi waay di def na rafet ne bés dina faatu kon du xarit du waay ana buur yi ak ñi ñu jiite woon fuñu nek te tay nga la wax ma way aduna ngi ni lepp nay rafet lu ko moy ëlëk di nga yu ki fi am alal dañu naw ko ak ki fi ñak tayam na nga xam ko way sa état si kat lu mu taru taru du te ñu jël la julee nga ñaay deug moy sa jëf yi ya rafet te yalla rek ko tax lu ko moy bilay di nga rëcc kon nga ñu xel ci jëm ëlëk dina tar àdduna aduna ngini kuko jappe jàppe di nga mujj xam ne du tous billaay aduna ngini kuko jappe ko di nga mujj xam ne du tous billaay buma de xalat suñu ndaw yi ñi ren ndax alal du ma siggi way buma de xalat ñi fi ñak tax ba ñu gi le des fa way buma de xalat ñama daan fawal ba ma dee xalal fu ñu nekk tey sama fit du dal bu ma dee xalaat li ma weesu ndax rafetul bilaay maa ngi tuub di ñaan yàlla buur yërëm ñañu jiitu sàmm ñu des fi waay maa ngi baalu ak ku dégg way wile al amin bara ko way maa ngi baalu ak ku dégg way wile al amin bara ko way maa ngi ñaan na buur yàlla yokk wér suñu yaay yi des file oof ñu toy yàlla buur yërëm suñu mag yi ak suñu rakk yeeg ñu ñu jiitu baay fa nga nekk tey yàlla gën ci yow fi nga bàyyi ko te ñu des fi waay fa nga nekk tey yàlla gën ci yow fi nga bàyyi ko te ñu des